bismillahi irrahmani irrahim barkeb boroom tuuba ñu fas yéene ñëw ci meññitum zaadu dawi taallum li rabbihim wa raxatul muhallim sëriñ alxaaji mbakke moo ko doon gàttal ci worof ngir bëgg ñépp jariñu ci rawante naag murid yi yal na ko yàlla nangu ci barkeb sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahu fii la téere bi tàmbalee bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hasbunallahu wa ni'mal wakil maa ngi sant sama borom subhaanahu wa taala mi dundal ab xol ci xam-xam di ray ab xol ci ak réer di julli ci yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi mi nga xam ni sunu boroom da ko yabar ngir muy xamal ku xamul lii wayla woo xam ni ak laabire moo ci nekk goo xam ni dana jariñ képp kuy sori lu bon dama ko way ngir dimbule diine yàlla subhaanahu wa taala di ci sàkku ngërëmam tudde ko yóbbulu ñuy wut xam-xam ak noflaay noflaayu kuy jàngale mooy zaadu sawi taallum li rabbihim waraatul muallim yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee ŋàññi dee leen jiital jàng ci jëf na di jiital xam-xamu pas-pas yi te ñooy pas-pas yi dëppoog sunna te amul benn werante wala biijoo teg ci xam-xamu ni ñuy jaamoo ak xam-xam bi jàngale nañuy ñuy sellale bu ngeen jàngee loolu ba noppi te bëgg a gëstu hadis yi ak alxuraan mënta ñàkk ngeen jàng naxwu ak taswif ak balaawa ak lugatul arab képp ku jàng xam-xamu wéetal yàlla subhanahu teg ca xam-xamu jaamu ko ak biy jàngale sellal jaamu gi ba noppi ànd ak mbooloo miira yu yonente bi sallallahu taala alayhi bi ali wa sahbi ku def loolu mucc na ci bépp fitna gaaw leen jàngi ngir jëmm yàlla kese subhanahu wa taala am ñu leen di topp wala ngeen di wéet ak seen bopp biddaa yi daa mel ni ak lëndam te dañuy waral du gis leerug yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salam gaaw leen jàngi tey góorgóorlu ci dégg li ngeen di jàng bu leen ko yeexe ba nekk mag loolu ak perte la dee day ñëw te bu dikkee kenn mënu ko daw te metti na lool te raglu te naqari képp koo xam ni gaawul ci ndaw jàngi topp bànneexam ba nekk mag néew na lool lu muy am la mu bëgg ci xam-xam li ko waral moo di dootu ko jàpp ni na mu ko jàppandee woon ba muy ndaw ku leen di tere am njàng da leen di jëme ci am mbugal dee leen ko daw da leen di fitnaal jamono jii ku ciy tere am njàng day woote ci bidaa ndax jëf ju àndut ak xam-xam faaw mu amuk yàq xam-xam ak jëfe lépp lu baax ci àdduna ak ëllëg ñoo koy waral waaye xam-xam moo gën a màgg jëf yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na xam-xam mooy imaam yi jëf jëf da koy topp képp kuy jëf ci lu dul xam-xam day mel ni ab pënd buy tasaaroo ku xam lu baax te du ko jëfe itam mi ngi mel mi ngi mel ni maam mu yanu ay téere loolul noonu la ko sun boroom waxe ci suratul jumaa mafalu lazina xumilu tawraat thumma lam ku bëgg ak àgg ca yàlla képp ku bëgg a àgg ca yàlla subhanahu bi sallallahu taala alayhi wa ku jub koo xam ni du jàdd ci zaahir ak baatin mu lay wommat ci xam-xam ak jëfe di la bàyyiloo li nga war a bàyyi li képp ku deful noonu daa di beru day xalku te du am dara ndax seytaane ak bakkan ak bànneex ñoo koy daa di womat lii ab dog la bu ngeen di jàng na yàlla kese tax bu leen ci ëpplante bu leen ci jubloo am daray àdduna képp kuy jàng ngir daray àdduna mi ngi màbbu diineem jaay na ëllëg jaay na ëllëg jënde ko tey loolu mu def mi ngi mel ni koo xam ni da doon jaay di ci yaakaar ak yokk te du ko am naka noonu képp ku xam lii ci nit ba noppi di ko jàngal yéen a bokk atte mu ngi mel ni kuy jaay jaasi kuy raye yaa ko dimbale ca loole muy def bu ngeen di jàng dangeen di fas génn ci ak réer ak dundal xam-xam ak jëfe ak jariñ ci nit ñi ku ñuy wax Saruq radiallahu taala anhu am na lu mu wax loo xam ni képp ku amul dégg dana la yar daa wax ni képp kuy wut xam-xam ngir waranteeg ñi xamul wala puukaranteeg ñi xam wala alali adduna wala daraja dellu na ci sawara te sunu boroom subhanahu dana ko seet pat ab dog bokk na ci teggi ni kiy jàng muy bañ a lor benn jullit tey farlu ci farata yi ak sunna yi bañ a yeexe wenn waxtu te amul ngànt tey tabe ci xam-xamam tey jëfe la mu xam képp ku nay ci ab xam-xamam dees na ko nattu war nay màggal xam-xam bi bañ a teg benn téere ci suuf wala aw kayit wala aliwa saa su xaajo ba ñëw bala moo laal téere bi mu jàpp wala mu raxas ay loxoom ba mu set mu door a téye téere bi ànd ak ku màggal loolu moo koy dolli tuyaaba ba tey muy wormaal ki koy jàngal di ko liggéeyal képp ku amul ngërëmul sëriñam du am la mu bëgg ci ab taalubeem nee nañu njariñul xam-xam mi ngi ci màggal ki ngay jànge ci moom ab dog képp kuy wut xam-xam mënta ñàkk ngay muñ ab xiif ba mel ni gaynde di yàggal sab jataay fa ngay jàng ba mel ni am tan tey xër ci xam-xam bi ba mel ni ab xaj ni muy xëre ca la muy topp tey lewet ba mel ni am muus tey muñ jigéen ñi ba mel ni mbaam xuux tey muñ lépp luy toraxte ba mel ni mbaam lii lépp coono ak farlu moo koy maye ñu ñëw ci ab dog am na ñeenti noon yoo xam ni war na ngeen di xeex ak ñoom muy bakkan bànneex adduna seytaane ku ci ne am na fu ñu koy tëj am na ngànnaay lu mu yore bakkan ci xiif lañu koy tëj amul beneen kaso ngànnaayam mooy regg ci lay tere ab jaam jaamu boroomam subhaanahu wa adduna ci beru ànd ak xam-xam ak jëfe lañu koy tëj ngànnaayam moo di jaxasoo bu amul njariñ seytaane ci tudd yàlla lañu koy tëj ngànnaayam moo di sàggan ci tudd yàlla subhaanahu wa taala bànneex ci noppi ci lu amul njariñ lañu koy tëj ngànnaayam mooy bari waxi neen ñu ñëw ci ab dog buy soññee ci xiif bañ di regg yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa nee na duñu lekk te xiifunu lool bu nu suuree du duñu lekk maa ngi leen di dénk ngeen di xiif baax na lool day sellal jaam dee leen farlu ci wut lu lew ndax mooy tax ngeen jige yàlla subhanahu wa bu ngeen amee lu lew itam bu leen regg mukk ndax ci la ak waru tàmbule ci la ay yépp jóge am na juróom benn yëf yu ci nekk ak yeneen day wowal ab xol di yàq am xel ba du mën a mokkal du mën a xalaat bu baax di yàq ak mokkal day diisal ci say cër ba doo mën a sàkku xam-xam ni mu ware doo mën a jaamu yàlla na mu ware subhanahu wa taala day dimbule seytaane ci yow di gën a dëgëral bànneex yi wut leew farata la ci bépp jullit xam-xam ak jëfe bu àndeeg lekk lu xaraam du am njariñ dee leen moytu lépp loo xam ne xaraam la wala ngeen di ko njot wala déet bu ngeen di jëfandiku na ngeen lekk lu yam lu mën a dëgëral seen ba ngeen mën a jaamu yalla subhaanahu wa taala sayidatuna aisha radiallahu taala anha nee na waa kër yonante taala alayhi wa sahbihi wa mësuñoo rekk ci mburum dugub lu man ñaari fan yu tegaloo ba ni mu noppaloo ba tey sayidatuna Aïcha radiallahu taala anha nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa bi muy làqu bàyyiwul dara lu dul kiloy dugub yu néew lool ba tey nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama daana tegale ay fan waa këram duñu añ duñu reer nee nañu yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa bi muy làqu am na bam moo xam ni da ko tayle ci benn yahoot ngir mu jox ko lu waa këram di dunde sayidatuna aisha radiallahu taala anha nee na biddaa bi njëkk a sosu ginnaaw yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mooy regg maa ngi leen di dégg dénk xam-xam ak jëfe yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen xam-xam yi bi ci gën mooy xam-xamu wéetal yàlla subhanahu wa ñépp maase nañu ci loolu ginnaaw boobu xam-xamu tafsir ak xadis yi yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ak xam-xam bi jàngale lislaam bu yooyu jàllee xam-xame arab yi doore ñëw maa ngi leen di dénk ngeen di ànd ak ñu baax bu ngeen di wut xam-xam xool leen ku jub ko sàmmonte ko farlu ngeen di ànd moom bu leen ànd ak ko tàyyeel mukk wala ko sàggan wala ko yàq li tax ma leen koy dénk moo di nit ku muy àndal kooko lay roy su ko defee bu dee ko jub day daal di jub foofu la téere bi yam maa ngi sant yàlla subhanahu wa tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi boroom xam-xam yépp yal na ko sunu boroom dolli ay xéewal tey julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa ki jiite boroom xam-xam yépp yal na ko sunu boroom dolli xéewal ak tedd nga ak wóolu moo ki ñoñam ak i li fekk jàng mi nga am li mu bëgg subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin bismillahi arrahmani irrahim sëriñ tuubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na yow ma baabu gay del topp ndigali sunu boroom yi subhaana wa taala moytu tereem boo bëggee am ak mboolem njariñi adduna ak alaaxira mi ngi ci def ndigal yi bàyyi bul ànd ak ko sàggan del ànd ak ko farlu bul bari ay wax bul bari ay nelaw bul bari ak lekk bul bari ak naan lépp looy def na dëppoog sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa lépp looy def te dëppoo wut ak sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi du am njariñ tey wut xam-xam tey laaj lépp lu loo réere tey wut xam-xam tey laaj lépp loo réere bismillahi rahmaani rahim baneen dénkaan sëriñ tubaa xaada lahu allahu nee na maa ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu yar ci bayit yi képp ku ma bëgg mu yaru te yéege ci képp ku ma bëgg mu yéeg ci kun fa yakun amin ya rabbal alamin yow murit bi deel néewal lekk ak nelaw bul jaxasoo koo xam ni du la jariñ boo bëggee àgg bul jëw foo tollu deel zikkar lekk gu bari dalay xañ neexiitu jaamu yàlla subhaanahu wa taala nelaw dalay xañ barkeb dundu barib jaxasoo day warali lor ëllëg ndax dana waral doo amu lay fa yàlla subhaanahu bërib jëw boo ko tuubul mën naa génne wéetal yàlla ci sab xol ku ñuy wax ibrahimum nu addaham radiallahu taala anhu nee na ànd na maag lu man ñetti téeméeri wàlliyu waaye ku ci nekk ñeent yooyu la may dénk ñu ñëw ci maani rahim sëriñ tubaa xaada loxoo maxtaar loxoo nee lu waaye def dana gis ak fayam ëllëg lépp lu waay jiital ci jëf sunu boroom dana ko ko fay bismillahi rahmaani rahim tuba xaada laho laahu maxtaar la woon nee na leen ragal yàlla subhaanahu wa taala tey ami teggiin dee leen sant xéeway li yàlla yi subhaanahu wa dana waral ak dolliku dee muñ ci jaamu ko dana waral mu fay leen teral leen képp ku yàlla màggal dee ko màggal tey daaranteeg ku yàlla jay dee leen moytu lu ak lu ñu sib dee leen lu war ak lu ñu sopp ci lépp lu dagan loolu dana waral yàlla fay leen bismillahi rahmaani rahim sëriñ tuba lahu maxtaar lahoo nee na dee leen jàng alquran ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa te gëm yonante bi sallallahu taala alayhi alihi wa sahbihi wa mu andi dee leen laabiir képp ku nekk ab jullit di ko dimbale tey mu daaranteeg ñi xamul bismillahi rahmaani rahim sëriñ tuubaa xaada lahu law maxtaaloo nee na dee leen tuub xayi bi kon da ngeen gis yu nëbbu yi dee leen baril subhaanallahi dana far xayib yi di leen dimbule ci not seeni noon dee leen sàkko xam-xam da leen di musal ci lëndam yi dee leen soxla woo yàlla subhaanahu wa taala kon dana am ñu texee ci yéen yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa ki gën ci yéen mooy koo xam ni ku ko gis fàttali ko yàlla subhaanahu wa taala bu fen bu leen wuute ab dikk bu leen wor buleen leen saay-saay ci ab xuloo ndax yii mooy melow naa féq bu leen bàyyi seen ëllëg ngir addunay kenn yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa na kii ci nit mooy kuy bàyyi ëllëg ngir addunay moroomam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin